tonto Pa jërëjëf euh, tirbin lay tuuti jàngataat euh, li ñu ci njëg yi dëkk nga ci yéen ñaar ñëpp sax ñëw ngeen ci euh, tey da ngay dégg léeg ñu nekk ci parti pouvoir bi li nu ñàkk ci élection yi passé di tudd ay ministre yu liggéeyul ak ñu wàccul ci terrain beeg ay directeurs généraux ak nangam <laughs> waa jàngat la de mën nañ leen a gëm loolu waaye kilo soble buy jar mille francs lu ko gën a mën a xañe électeur amul saaku ceeb buy jar ñeenti junneeg lu teg lu ko gën a mën a xañe électeur amul bidon vingt litre buy jar juróomi junne yu manqué ñaar téeméer lu ko gën a mën a xañe électeur amul noonu nga koy toppee ca suukar sa ca meew ma ca lépp yooyu ku ci deful focus li ma gis waa Pastef naan focus 2024 ma naan leen teel na oh. da ngeen war a focus ci 2022 ci jafe-jafe askan wii ngeen jéem a opposé woo pouvoir bi ci ñatamal leen ba ñu expliquer sénégalais yi lu tax njëg yi di yokk te arrêté ak nan la ñuy fexee daar daar ñu jéem ci pexe focus bi foofu la war a jëm pas 2024 ku nekk ci jafe-jafe ndox këram yi fees ñu ne ko woon def nañuy milliard pour loolu war a saafarawu ki am ndox ci biir këram amul fu mu taal cinam ka am fu mu taal cinam amul lum def ci biir cinam nga naan ko muñal fii ak 2024 bu ñu ñëwee mu saafarawu koy dig reer nag day fekk nga jox ko añ wala ndekki xelam dal mhm. kon focus 2022 lañ war a tal pas 2024 mooy ñu gis opposition bu dajaloo ko woote conférence de presse uniquement ngir waxtaanee njëg yi di yokk uniquement ngir waxtaanee wal mii sonal borom kër yi nga xam ne tey ñi ngi fanaan ci ndox ñi génn seeni kër su boobaa boo ne leen après focus 2024 ñu ne ah waaw moom de nàngam ak nàngam waaye daal da ngay xool ñi ci pouvoir bi xool ñi ci opposition bi ndeysaan gis électeurs yi gis ne électeurs yi daal ñooy kumba amul ndey électeurs yi ñooy tàccukat yi ñooy yuuxukat yi ñooy xeexkat yi ñooy votekat yi waaye opposition bi après ñooy dealers yi ñoo pouvoir bi kii jóge na fale kii transhumé na kee jox nañ ko pos kee ngay yootu sées ba kee ngay bañ jub ca sées ba askan wi wëy ci seen jafe-jafe yi ñuy dundu te du ngeen ko léegi xale yi jël gaal lu tax ba léegi mënul dakk kenn kenn mënula dugal ci bopp ndaw ñi fas yéenee dee barsa wala barsàq waaraatekat bi waaraate na ba sonn <coughs> kii conscientiser jéem na ko ba sonn palaato yi wax nañ ci ba sonn mais teewul ndaw ñee ngi jël gaal ñi di dem waaw feek amuñ espoir ci seen réew kenn mënu leen a tee dugg ci ndox mi donte kenn du leen ko digal waaye wax nañu ba sonn lan moo tax ba léegi mënula la saafaraw jafe-jafe lekk ak naan ak paju jafe-jafe lekk ak naan ak paju su demee ba nekk ci bopp ñépp buntu mbon gu nekk ubbeeku na mhm. buntu yàqute gu nekk ubbeeku tey jigéen ñi gàncatu mi ngi gën a yokk koo ci dem laaj ko bu dee fukk la juróom-ñett naan la dama mënula yor sama bopp fanee maa ngi gis benn site internet bu ci bind benn article ci ku jigéen koo xam ne nii nee na li ko dugal ci muy gàncatu muy gàncatu muy gàncatu mooy am jafe-jafe dem ci kim yaakaaroon pour mu saafaraal ko ko mu ngi nekk ci position wu nguur kooko saafaraalu ko ko te amul beneen pexe lu mu def looloo tax mu dugg ca loola doonte loola du lay ndax am na ku amul pexe ca ñooña sàkk nga pexe feneen fu dul mhm. guddi gu nekk ngay waxaalee ki góor sa bopp waaye pour wax la ne am na ñoñ seen xel mu gàtt ca loola la leen di pousser ngir ñu def ko kële ma nga jàpp ne dafa war a agresser ngir génn ci kële ngay jaar fële di leb di dajale te du fay ku nekk mu digg la ne la danaa la fay demante police bi bari kaso yi fees commerçant bu dem def pere dem liggéey bu paree daanu ñu porté ko plainte yóbbu ci kaso bi tëj boroom kër gi leb boutique ba mënatula dëkk ci koñ mu xëy toxu borom kër gi luye comme li nuy waxtaanee yoral boroom kër ay juróom benn weer ndax talu la fay location ndax njabootam lu def seen biir la def priorité que lu muy fayee location askan wu amee déception nii taluñu ko lu dul na benn député jóge ci camp ñëw ci sama bos naka lañuy def ba dossier aji saar ak Sonko ñu dekkal ko franchement franchement sunu woy politique yi ñu bari ci ñoom fañ ñoo yeb fañ ñoo yeb de fañ ñoo yeb ca ka ca pale ba lay doore nag ba ñëcca dugg ba nga dugg ca pale ba bawuma ci kenn fañ ñoo yeb ndeysaan askan wi di tol tolaan amuñu fuñ ko jooytoo ñoom ñuy nekk ci donkaasi gi di nguuru kuñ ci fal tey nga doon luye fii ki weer nga am kër fii ki at nga ami kër di gaaray oto sa soxnaak say doom dootuñ jàmbatati dund bu seer ak sa ñala jege ba ci say goro te changé wul nag ba tey 60 ba tey même type politiciens yi la ñuy am men num ku mel ne maritew ñaan ngay fekk mu mën a waat ne dugg naa ci nguur ba génn ci sama salaire laa yem sama am-am yokkuwul bu làngeeg fukki ministre kenn ñemewu ceewaat buñ ko tegalee kaamil dangay dem ci gox ñu ne la terrain yi ngay gis diwa ko moom koo xam ne yorul sax poste ministre waaye rek ma nga far ca nguur kañ la suñ woy politique yi di ragal yàlla ci terme buñ daan wax démb rongoñu rongoñu baadoola mooy siim cerey buur <laughs> waaye bu ko siimee bu ko buur lekkee du rees ndax rongoñ du pur siim cere <laughs> wala foox na ko wax ju rëy la rongoñu baadoola mooy siim cerey buur bis bu ko ko siimalee ba buur lekk ko du rees soulagement xam nga daan nañ ko moom yaag ñu ne ministres yi dañuy def benn conférence de presse pour mhm. expliquer seen liggéey ak nàngam dafa baax sax dafa baax mhm. population bi di am information ñu toog ñu ne ministre commerce woote na conférence de presse mi ngi indi explication lan moo tax kilo soble di jar ñaar téeméer c'est catastrophique nga ne ah boo gisee loolu kat soble ba doon jógee dëkk sàngam di jaar dëkk sàngam moo nangam moo tax bi mu ñëwee Sénégal nangam loolu moo waral mu ñëw fii waaye am na ñoo xam ne ñi ngi ciy profitoo jël nañ ci matuwaay fii la prix bi war a yem kuñ jaayee lu ko ëpp nga signalé ko état bi ngi ciy jël ay matuwaay dana subventionné lii dana tegg taxi tel su ko defee ñu xëy ne ah waaw wax dëgg de ministre bi nee na prix bi warul weesu fii. Mhm. ñu ngi ciy jéemi pexe donte jafe-jafe am na sénégale yi mën a comprendre. Mhm. mais loo daan jëndee trois cent cinquante tey dem ñu ne la mille francs la te kenn du wax président ngay woote pale ñan la woo député ya pour wax leen nan la leen defalee séminaire. Mhm. ñu xam nu ñu demee assemblée député ñan député peuple bi. élection yi ba léegi président amul benn act bu concret bu mu teg wala wax ju fës ci jafe-jafe yi askan wi dund ci ndox ak dund bii di yokk lu dul rek benn ngay gis ñu nekk ci palaato yi di laaj la ci naan waaw loolu fépp la geeru Ukraine bi Russie moo jur léegi li mu jur yëpp ci àdduna bi waaw mais am na ci ñoo xam ne ñu ngi génn di wax ak seen population opposition bi ñu ngi opposé ci lu mel noonu teg pression askan bi lii maxtar saar di wax li Tonton Pama di wax di keneen am na ci benn opposition oppos bu tudd Sonko wala bu tudd xalifa Sall wala bu tudd Barthélemy wala nangam su dajale woon presse bi wax ko mooy gën a jot ka mu dugg ci nopp borom pale bi ka bu ko benn Makhtar saar di wax waaye askan wi ñoom ñooy kumba amul ndey muy lu métti nag am na ñoo xam ne gor lanu mm-hmm. <laughs> mënuñoo wonk tey ndeysaan sëy yu bari yëngatu na sëy yu bari yëngatu na ndax lan jigéen ñi tey bu ñu demee marché dañuy wër ba seen dàll dagg dañuy wër ba seen dàll dagg mm. ndax liñ leen jox dépense doyul mm. te góor ñi mënuñoo yokk démb tonto paw ma dama ree mm. sama soxna daf ne ma Euh, sax euh, yenn jours yi lu mel ne jeudi dañuy toggal ndongo yi ñam wuy ànd ak mburu reer démb mu ne ma mm, suba la jeudi danaa soxla juróomi kilo soble waaye mille francs la <laughs> ma ne ko changel plat <laughs> ba pare di ree ma ne ko changel ba ba mbir yi <laughs> juróomi kilo yu sobre te te diw dikkagul yeneen yar yooya war a àndal mm-hmm. dikkagul ndeysaan mare di xalaat nag yu baree baree baree bari oustaz oustaz barki démb dama dem euh, marché euh, doon ut persil persil local bii laa soxla woon ñu ne ma takk 500 <laughs> takk téeméer persil persil bi doon jël takk juróom mu jege bu cher ba cher takk 100 francs ma laajte pourquoi ñu ne noo dafa amul doy na yàlla yàlla doole sutura lépp a yokk la waa noonu tey ñépp tonk ndax lépp yokk waaye mi ngi nii rek ku ñu ñuy wa ku ñuy wàllu ku ñuy wàllu de dafa triste te dafa ruslu talu leen lu dul seen bopp yéen politiciens yi am leen jom am leen kersa rus leen yàlla yërëm leen seen askan sonn nanu kuy dundee seeni enveloppe nag du leen ko wax waaye ku mel ni man kaccat ma seeni enveloppe ak seeni poste nii ma sàmba nii ma demba waaw ku yaakaar ne dangay wax borom pale ba te doo wax ak ñiy yóotu ca pale ba daa fekk jotagul pour nga wax ca ñoom rek am na ñooñ ku dul yàlla safu leen lu dul yàlla safu leen dañuy ñaan bokk ca ñooñu waaye nag faaw ngeen gestuwaat changer seen doxin metti na lool li gën a bon gën a ruslu mooy askan wuy bëgg a dee ngeen ne méeg ne du ngeen wax lu xew ministre commerce direction tel nangam nangam réew mu mel ni amul ñu ko jiite commerçant yi def lu leen neex yokk goo xam ne nii loi bi marché bi la jaaykat bi la amul contrôle mais baax nañu ñu xëy sax nañu ah dem na demoon nañ marché tel saisir neen nàngam ndax bi nàngam amee waaye day dem ba léegi presse bi day wax coow li ne kur benn gox saaku soble fukki junni nga soog di dégg ne réagir nañu lii ba kañ réew mu am suuf su doy ndox mu doy am géej tey jën yokku na ndakaaru ndakaaru géej a ñu wër mënoo am jën soo demee sumbi jun ñu ne la gis nga bato yaa nga nele lu boroom gaal yi naroon a napp ñoom ñoo koy napp ñan ñoo joxe bato yi ñan ñoo jox bateau yi licence ñu ngi ci seen i bureau naan jaayee nañu ay licence ay milliards ay milliards leen war a gënal seen di 17 million mm, population bi bi ngeen ko jaayee ba noppi fan la feeñ soo waxee ñu naan bilan bu baax moo ne bu ñu waxee bilan président def na fi loo xam ne war nañ koo mën a waxal bilan am 2012 lu tax ñu jëlee fi ab lay Wade day bilan fekk na autoroute yi taxaw pont yi taxaw tali yi ñu defar ko jamono yi lay toq woon suñu nopp tali kenn du ko baxal lu fal président Macky Sall mii du bokk na ci mooy ah ay tali kenn du ko baxal buy campagne yor saaku ceeb naan ñëpp sonn nañu su ma faloo danaa yokk danaa wàññi ceeb bi danaa wàññi dund bi parti pouvoir bi naan mënul nekk li muy diggee mënul a ne bëril pétrole bee yokk ñoom ñoo nu waxoon nañu essence bii sax ngeen di jëndee téeméer ak nangam mën na jar juróom benn fukk juróom ñaar fukk li tax muy jar téeméer ak nangam yi ay taxe la ndax Sénégal gii lay jaar dem Mali gën a yombee Mali mais bu doon saar la ñi ngi ko mokkaloon 2012 te ba mu ñëwee la mu waxoon def na ko ak lañ doon layoo yëpp naan mënu la nekk waaye ñëw na ne mën naa nekk wàññi ceeb diw daaray première nécessité yëpp ñu wàññi ko ah tey ka waxoon ne man na nekk tey ñooy toogaat naan manta nekk ñeneen naan ñu man na nekk koo ciy wóolooti koo ciy gëmati mburu foofu ko fëriñ ku falu fuuy neexu dégg mais maanaam xol bu triste la ci askan askan wi lu ngeen laaj jox nañ leen ko mais ngeen war a fay naar bi xoromam nag mënoon nga comprendre ñu ne fépp la métti mu métti ci seen côté mais yéen politiciens yi ñi ci nguur gi yéen a xam ne dara méttiwul ci seen côté jàmbatu leen ceeb bu seer du diw du location du oto yu ki yuñ du bureau yu sedd jàmbatu leen dara te askan wee leen ko jox ñu tax ngeen di tedd tumuraanke te seen yaram du daw ragaleen yàlla waay ragaleen yàlla seen askan sonn nañu seen ndoxu bakkan yaa ngi tuuru ñépp a jaaxle waaw am na yoo xam ne mën nga ko muñ loo nit ñi mais day fekk nga wan nit ñi yow ne yaa ngi koy dundandook ñoom ñu muñandoo koog yow waaye ku la ci romb piip piip téeméeri oto dar ko juróom fukk juróom benn fukk bu ne jar téeméeri million ñu ne la dëkk bi dafa métti oto buy jar cent million ñu ne la dëkk bi dafa metti seen terrain de vie dara wàññeekoo ci ba kañ soble bii ñuy wax muy muy yàqu lan moo gënoon a rafet état def ni mu def ci transport bi mu def ko ci yeneen secteurs yi mënoon na ñëw rek ne transport bi libere na ko taxi yeeg njaga njaaye car rapide ak yeneen tata yi daw di fayeeku mais lan moo tax ñu indi Dakar dem dikk sotoraak nekkoon fi nekk moo moomeelu état noonu la état waroon a am yeneen yu mel noonu lu mel ne soble tey mu ne baykat yi ku ko jaay kaay defar nañu bërëb yu mën a conserver soble fii ak buñ ko fi dencee un du yàqu kaay leen ñu jënd ko denc ko di ko jaayaat sax askan wi bu boobaa baj buñ leen koy jaayaat ndax kat transport bi dañ koy jaayaat askan wi pour pourquoi état warul a jaayaat soble warul a jaayaat ceeb warul a jaayaat xar ci kaw du daaneel secteur bële mën a ñëlal waaye ñëla lay lëkkalool baykat bi nga xam ne bay na soblem di ko jaayee kilo 200 francs mu mën a yàqu mais nga jëndee ko deux 200 tey denc ko ba askan wi soxla ko nga jaayee leen ko 250 au lieu que ñu war a xaar soble buy bàyyeekoo bitim réew mais fekk na sa réew waajal nga sa bopp ba sa soble nga mën koo conserver ay weer te du yàqu mais c'est possible. na yàlla doole ñu sutur ñu jéggal nu nag la Ibnu Duray di waxoon. lakinnaha nafsatu masdurin isa jaasa luxa min nawaahiha xama dafay wax di wax ba mu yàgg mu ne ah mënul ñàkk nag ndax ku soj faaw mu sëqat waaw ku soj faaw mu sëqat askan wiit it faaw ñu sëqat ndax dañoo soj waaw dañoo soj te yeguñ ne ñi leen jiite soj nañ ne ñoom ragal leen yàlla waay ragal leen yàlla ragal leen yàlla ah <laughs> du jik ku ko def de ah xol bu naqariw askan ku jàpp ne ci ngay amee xol bu neex yaa ngi nax sa bopp de ak ku la cay jàppale nag wasalaamun ala man itaba al huda <laughs> yàlla doole ñu sutura su ko defee rési ñu dem dellu si dugg ji suñ tam incha allah